mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm ci xibaar mbir mu rëy amatina Abdoulaye Diop Khass borom Khass TV ak ki nga xam ne rek moo di Soumboulou Bathily mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko lool ci Sénégal mu nekk boo xam ne jàpp na ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal jamono ji ña ngay nemmi ko seen diggante moom Abdoulaye Diop Khass ak ki nga xam ne rek moo di Soumboulou Bathily problème boo xam ne bu rëy la mu di rek wàllum divorce boo xam ne ñu ngi koy dégg seen diggante ginnaaw bi nga xam ne rek sëy nan ñaari at ak ñeenti weer ki nga xam ne moo di Abdoulaye Diop Khass nag euh, jamono ji ñi ngay wax ne sax moom mooy baat ki nga xam ne rek moo di sumbulu baat ci li ginnaaw bi nga xamee ne ñi ngi nemee seen diggante ay coow waaye lu ci am jamono ji rek ñi ngay nemee ko ab divorce seen diggante mu di Diop Khass mi nga xam ne ñëpp ràññe nañ ko lool ci Sénégal daat nay may baat ki nga xam ne rek moo di sumbulu baat ci li waaye lu ci mën di am jamono ji rek am na si ñoo xam ne ñi ngay wax ne cat daal moo dugg seen diggante ndax kat dañoo gis na jamono ji ku siiw rek booy takk ko soxna dañ koy fasal ci réseaux sociaux yi ku nekk di ci teg sa bët ku nekk di ko gis waaye daal lu ci mën di am ñi nga xam ne ñooy Sénégal yi ñu ngi réussir di wax ne rek sëy yi tas jamono ji daal am na si ñoo xam ne cat mooy daal topp parce que nag lu ñuy def dañ koy wane ci ci internet bi loolu nag mën naa tax cat dugg ci seen diggante mu nekk loo xam ne nag doy na loolu ki nga xam ne moo di Jóob Xaas daan nañ may baat ki nga xam ne moo di Soumboulou Bathily wala kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M Assalaamy TV Sénégal